jërëjëf jaajëf Aba jaajëf ami téléspectateur de la télévision Futur Média kontaan ci yéen bu baax a baax a baax di bég encore une fois di woor ba tey euh, waaye di ànd ak yéen ci li nga xam mooy weekend start weekend start un weekend qui démarre euh, comme ni ñu ko tàmmee di wax weekend star euh, un weekend boo xam dañ ciy ànd ak ay star moo xam ci wàllu saayir wala wàllu baatin ah ci li nga xam ni moom mooy ay way wala yenn saay ci ay événement yenn saay ñu dem ci ñi nga xam ni ñooy way suñu këru diine yu baax ak di. sant euh, yàlla suñu borom di tagg sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ci concept boobu la ñu nekk ci weeru koor et bu ma juumul dugg nañ ci woor wàcc et bi mooy samedi bi mujj ci koor gi euh, am déet euh, wax naa dëgg wala waxuma dëgg tey la ñu am ñaata ci koor gi ay vingt ñaata vingt deux wala vingt trois vingt deux buñ dogee vingt trois vingt am nañu wooru de am nañu wooru de gars yi leen date bi ah vingt quatre kon man maay wàññi fan yi tey vingt quatre buñ dogee tey am nañ vingt quatre alhamdulilahi rabil alamin moo tax ci weeru koor la ñu nekk ci weeru yërmande la ñu nekk ci weeru maanu la ñu nekk ci weeru baalante ak la ñu nekk waaye weeru wax lu sa yoon nekk la ñu nekk mu am lu ma metti cri de cœur boo xam ne ci réew mi dama koy wax parce que ñu ngi koy seetaan ci réew mi te bu ñu xoolee dina dem fu sori marie ay célibataire yooyu ay statut la na marié yi may célibataire yi seen jàmm célibataire yi bokk nañ ci xeet bi gën a sonn ci réew mi man marié la mais damaa gis ak samay mbokk marié yu ma toogandoo loon démb ci guddi ñu reer seen biir kër tey nekkatuñu marié donc situation la boo xam ni pour changer génn fii dugg fii dafa yomb bàyyi leen célibataire yi da nga leen di attaqué célibataire yi dañoo mel ni ba nekkatuñu seen réew nekkatuñu à l'aise ci réew mi te suñuy rakk lañ suñuy frère lañ suñuy lépp lañ célibataire lu bon ñu ne ku war a dee célibataire yi ku war a feebar célibataire yi ku ñu war a rey célibataire yi lan mooy problème ci célibataire yi marié yi koy wax fàtte ni ñoom mosoon nañoo nekk ay célibataire ba digg célibataire yi di génn di wax di def ay vidéo j'ai vu une vidéo ci Kader Gadji yi mu tooyal sama xol bi mu mel ni kuy wax bay jooy mel ni ñoom li ñu nekkee ñoo ko teg seen bopp alors que ñoom teguñu ko seen bopp ay jaam lañ comme ñun ku sabab luy mani sëy yàlla nga koy takkee ci aras bàyyi leen célibataire yi di leen di jiiñ ay mbóot ci kër yi ay ginaax ak lu ne ñu leen koy jiiñ ci kër yi loolu na dakk te su ma nee le vingt neuf avril bii loolu dina dakk maa ko wax ca canal Olympia loolu dina dakk marabu chéri la ñuy waxtaanee ak ki nga xam mooy acteur principal bi nekk suñu fierté ci réew mi muy Abdelkader Gadji mais dinañ fa waxtaanee ñun célibataire yi parce que man presque célibataire la man sama kër laay nekkee marié su ma génnee ci mbedd mi célibataire la donc bàyyi leen célibataire ñu dund seen dund bëggatuma cee dégg kenn ku ci wax bëgguma cee dem ay tribunal wala ñu ci dem ay assemblée di ko fa kaas ak di ko voté nañu may célibataire yi seen jàmm ñu am seen jàmm wa salaam foofu rek laa bëggoon euh, ñu dugg fa ñu waxtaan euh, bu ñu ci génnee ñu duggaat ci li nga xam émission bi célibataire yi sonn nañ trop seen ambassadeur la à partir de dorénavant maay seen ambassadeur dootuñu fi laal benn parce que yëf yi wóoratul mën ngaa nekk marié tay ci guddi suba nga xëy nekk wóoratul yëf yi wóoratul bu benn marié xas benn célibataire marié ñaari jabar ak ñetti jabar ak ñetti jabar ci yem mën ngaa xëy sa situation changé mu mel ni kii du woon yow gis nañ fi lu ne fii waaw ñun ci réew mi lañ dëkk ayca nañu doxal ci li nga xam mooy weekend sat am nañu ay invité euh, comme tous les toog nañu ci euh, plateau bi yaakaar naa ni ndaanaan bu ne euh, dina jaar ci li nga xam ni mooy weekend sat et puis bëgg naa ak Aba ñoom Khadija ak ñoom Pa Moussa lii bugguma mu yem ci weeru koor gi kese mu mel ni waykat yi way diine ci weeru koor gi rek la ñuy way diine ñii dañuy way diine bu dul weeru koor dañ koy way ci màggal dañ koy way ci leneen événement bu am ñu way diine way wayu diine mais ngeen topp saayir si topp koo topp topp topp topp ba ñoom buñ toogee fii dañ may xool man naan ma yéen nitu saayir xam nga tamit loolu war ngeen ko éviter ñuy éviter waykatu diine yi à tout moment ñu ngi ni jël ci plateau yi di éviter ak kii di waxtaan ñoom nañu dem ci benn clip ma xool ko balaa ñu commencé jël suñu ay invité ñu dem ci benn clip waaye di leen fàttali ni tey fii ci cosaan dinañ fi joxe ay don de yu am solo ay don de ndogu yoo xam ni lépp rek dina am ci cosaan tey ñun ñëpp ngeen ñëw fii ñu ndogondoo ak yéen bu ñu noppee. ñëpp sol lu weex ñi sol lu weex dañuy dugg ci salle bi euh, ñu waxtaanee li nga xam ni moom mooy humour ak weeru koor parce que gis nañ ay sketch yu bari day daw ci biir weeru koor gi amuñu temps ak abation ci koor gi mais bu ñu invité ay nit ba ñu génn ci mbedd mi ba def suñuy dog ba noppi dañuy dugg ci biir saal bi ko defee waxtaan ñu jigéen ñi toogee nii ñu góor ñi toogee nii ñëpp sol lu weex ñu waxtaan ak yéen humour ak li nga xam ne mooy weeru koor amul reetaan bu neexee ba neex da ngay itasu rek mm, eh, itasu rek ku reetaan da ngay génn salle bi euh, parce que dañuy waxtaan rek euh, dañuy waxtaan nekk ñu fi di def comédie wala dara dañuy waxtaan woor xiif fi la mën a yóbbu ñii dañ naan ay kii dafa feebaroon ba dee dafa siburu ay kii corona bee ko rey siburu reyagul kenn corona reyagul kenn ay paludisme ak ay yeneen ak ay fièvre reyaguñu kenn ñooñu dañ lay sonnal ba yóbbu la ci dootoo mën a lekk xiif ku dee xiif la rey feebar yi ñu naan moo rey kenn feebar reyugul kenn feebar bi lay yóbbu ba nga xiif xiif googu moo lay rey kon xiif googu du mbokk mais bu ñu ko yàlla tegee dañ koy tegoo balaa nga doon xam ni xiif lu waay gëm gëm gëm gëm sëñ diw ak a baax sëñ diw nàngam mu war loola weeru koor di nga làqatuy lekk mbaa nga naan sëñ bi moom see yàlla rek ko moo tax ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax a baax nañu dem ci clip laata ma jël sama première invité Weekend Sad. c'est pour cela je suis venu avec un grand chanteur de chez nous mais qui exerce plutôt lui son contenu à jamais c'est de chanter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il est venu avec moi ce soir il s'appelle Moustapha Mbaye. Et Moustapha est très content d'être à Fès parce qu'il a pu faire le pèlerinage. Moustapha, Fès t'attend. yónneen yaa fi mën yónneen ba newul dafa taw loo diirim ba baax jël naa feeñ jël naa de yónneen ba dafa yónneen ba dawul dafa dawloo diirim la baay jël naa feeñ jël naa de yónneen ba dafa jéem a roy ci yonent be Moustapha Muhammadu Rasulullah ana soppay Muhammadu Rasulullah rek dara man aram loo Kumba Caam wax naa ni Sidi faa ngay demba ba ci njawar sama turandoo nga xam ni moo ne woon bu ruusul woon bàyyam photo da ngay wax ak moom muy tontu euh, mën na ci sax faj ay soxla tabarkàlla waaye bàyyam bala cee set maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. maa ngi sant bu baax. sa caméra ngi noonu heure bu lay neex rek nga nuyoon nuyonte ak téléspectateurs yi ñuy seetaan. ok ni waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital si nuyoo bi suñu papa suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam di nuyu sëriñ Mountakha Mbacké di ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ak mboolem rek fu kilifa diine nekk rek fii ci réew mi ñu ngi lay ziar di la ñaanal yàlla waaye di nuyu waa jaxaay yi nga xamante ni fa lañ jógee Kër Massar 100 pour cent dem ba da baax ñu ngi leen di di nuyu waa Kamil Baas waa sama waa groupe ñu ngi leen di baax a baax a a baax di nuyu Ibou Diouf nga xam ne mooy suñu buntu fii. Mhm. ñu koy ziar bu baax di ku baax waaye nag Aba di sama yaay Tata Mado di sama xarit di ku baax a baax a baax a baax a baax man ñu waxtaan ci lu baree baree baree baree bëri ñu ngi koy ziar bu a baax a baax nuyoo rek képp koo xamante ni rek ngi safoo demp da baax mhm. ñu ngi lay nuyu di la waaye di nuyu tamit di ñaan tamit di ñaanal képp koo xam ne jàpp nga ci clip bi nga xam ne moom la ñu de tourné muy suñu quatrième clip ñu def ko si anniversaire suñu Babacar bi muy Sidi Fagué Demba suñu Babacar borom leer yi di nuyu ki nga xamante ni moo def réalisation bi muy Kassé studio Paline kase ak ñun ko àndaloon ca Woya muy si Seydina Ali nag ñoom Abdou Latif ak ñëpp rek ñu leen di ziar bu baax a yow suñu partenaire ak mu nekk da ngay ñëw ci plateau bi. Mm-hmm. Eh, ñu waxtaan ak yow foog naa ni at mu nekk ci sa ponctualité ak sa mm-hmm. constance. Eh, di nga indi kilip boo xam ni mm-hmm. avant lay nekk wala ci biir weeru koor gi. ñu mën ko di waxtaane tey Serigne Babacar si eh, moom nga ñu indi lan moo tax nga woy Serigne Babacar Sy. ok Aba comme ni ma koy waxee rek maanaam sa turandoo maanaam dafa neex a way. Mhm. sëñ Babacar Si. ay eh, sama saak kan moo ko gis foofu. Euh, maanaam sama poset. parce que fi mu jëm nii mën na maa bañ a arrangé. <laughs> ko gis sama. kenn du moom Cheikh Seydi Aboubacar Si Malick. ba kare dara maa. préparé ci kër yi. yaay Kumba Caame Abba way na sa turando Serigne Babacar Sy Malick. mais yéen a ngi ma ma jox. adal xalifatu si xamu si na musammaawu. borom bone taballajal xusnu baadal xaw fi wamtasaja jàmbaari góor la lamma wadda sayyidu saadaati wan daraja sëriñ Babacar Si Maalik yee Seex Seydi Abubakar Si Maalik Bakar ak dara maan aram loo yaay kumba caam Fawad Farma Diop Abasa Turando daane xaway kenn du moom Cheikh Seydi Aboubacar Sy Malick nabki wa nabki wa tabkil jinnu wal umamu kazal jamaa daati aahin xarra xalbaawu fal yayibu lazi injaazu maana wal yayibu lazi qad naala bu'yaawu Abasa Turando mooy góor gi nii dëgg ci tiwaawan borom bu ne bu njëkk bi way naa bàyyi Maalik mooy lam la plus élégant eh. moom Serigne Babacar mooy lam la plus éloquent eh. Serigne Babacar mooy l'homme le plus véridique Abba. Eh. mooy l'homme le plus talentueux. mooy l'homme le plus rigoureux. mooy l'homme le plus généreux. mooy l'homme le plus droit. mooy l'homme le plus solidaire Abba kenn du moom Cheikh Seydi Aboubacar Sy Malick l'intellectuel des wàllu du Sénégal comme sama tur la tabarkal kenn du oh, bonnet carré de cinquante cinq centimètres nee nañ gone yi sax ci juddu ci ginnaaw mbay xamuñu ko waaye mbay rek la ñu gëm donc li waral nga way Serigne Babacar yaakaar naa ni mën nga ñu ko wax euh, ñépp ko bëgg waaw kay mi ngi noonu mu nekk koo xamante ni rek bu ñu ko tuddee rek maanaam deret day yëngu mu nekk koo xam ni nit ñi dañ koo bëgg moom Serigne Babacar Sy mm. li may faral di wax rek temps yi dama toogal ba caag mën leen ma ne sëñ Babacar si mooy xorom. Mhm. mooy xorom cin lu ko wute rek day lewe. wallaay dëgg la waaye nag dañuy sant yàlla ñun li nga xamante ni yàlla daf ñoo may ñaari aljanna. Mhm. ñaari aljanna yi benn bi moo di Seydi Mbaye. Mhm. beneen bi mooy Firdawsi Ja ndax ku bëgg sëñ Babacar si rek. àjjana nga jël àjjana nga jël waaw góor googu moom maanaam sa turandoo maam dafa neex a way maanaam yàlla moo ko jël rek def ko cadeau. li may wax rek mooy moom cadeau la ci biir tariixa tijaaniya léegi nag xam naa ni danga ñu wax euh, say projet wax ñu li nga xam ni moom ngay waajal et puis gis nañu ne fi ñu toll nii événement yi am yëpp yéen a koy tëgg mm. di nga ñu wax programme yi fan nga ko am ak yooyu waaye bëgg naa Abdou Aziz Alé Ndiaye nga xam ni baay Alé baayam moo bokk ak baay Alé moo bokk ak euh, Babacar njaak Alé moo bokk ak euh, ki nga xam ni mooy Masata moo bokk ak ki nga xam ni moom mooy ñoom Sóora ah moo bokk ak ñoom ay Khalil Alé ñoom ñëpp doom yaayu euh, Ilimane Lam euh, fi ñu toll nii tembe tembe ma nga màkka mhm. doom yaayu Njoogu Mbay euh, te moom Serigne Babacar rek lay dund mhm. te fi ñu toll nii ma dama bëgg bu déwénee bu dem mhm. ñu yóbbaale ma yaakaar naa ne yow bëgg nga cee dem xoolal loo jox Abdou Aziz ak famille Alé Ndiaye gépp ñu téye bu ko defee su ma woowee ne ma kii kan la ma fexe bu déwénee bu may yóbbu màkk umra mu yóbbaale la yow incha allah wax Serigne Babacar rek Sidi Fagay dem ba sunu maam xar yàlla bopp joor sëñ Babacar maam ju baax nga doomu maam as sëtu faa wadd me ca mbay ay waay bàyyu Mansoor yaay bàyyu Seex Tijaan ak al amin ay waay Sidi Fagué dem ba baax nga. am na solo léegi nag euh, nañu dem ci programme yi fi ñu toll nii weeru koor gi euh, yéenay euh, weeru koor moom yéenay bës moom. Mhm. fan yan programme moo am ak lan moo xew fi nga xam mooy ca jaxaay. waaw kay maanaam waaw ci Sénégal sax ngay wax. ci Sénégal weeru koor gi moom. fépp rek nee naa leen moom suñu programme la. fépp yéen a bi ma toogee fi ba tey sànq ba tey maa ngi sëqat mhm. ndax. tooy. ak ay programme waaw ba mu commencé ba tey si programme ngay fanaan. ci ngay yenn da ngeen ciy da ngeen ciy boole beew. waaw ndax <laughs> ñu leen woowee ngeen fay seen téléphone yi 11h ngeen di jóg. boo jugee naan marhaban asalaamaaleykum ah, <laughs> eh, xew a neex xew. dem yëpp su day ay léegi mu jeex de. une semaine la waaw mu jeex de wallaay mu ngi ñu xewaat rek. léegi mu jeex de delloo ci saa yu saa maanaam mooy suñu événement. stade nangam ak stade sangam ak ay boîte ak nangam ak ñun rek ngeen fay ñu koy lëmbe ñun jox nañ leen seen temps bu suñu temps ñëwee bu leen ñu sànni xeer naan ñu ay saayir maan la ñëw ci saayir lañ ne léegi fan la programme yi toll fi ñu toll waaw kay mi ngi noonu ko defee rek. koor gi moom daanaka instant bi moom programme yi daanaka jeex na ndax mm-hmm. bi koor gi tàmbalee ba tey ñu ngi ci programme yi mm-hmm. waaye nag ñu ngi waajal incha allahu taala suba ñu a dem fële ca Malika Kër Massar mm-hmm. incha allah di tàkkusaanu Seyduna suñu Babacar Si a a koo laylatu xam naa foofu la ñuy jaaree nag tëj suñu suñuy programme incha allahu ndax koor gi 3 jours moo ciy des incha allahu ba Euh, koor gi jeex incha allah. ba koor gi jeex programme day continuer waaye abaa ñun nag moom. alxames ak àjjuma. waaw non chaque jour sax. non ah. <laughs> bëgguma nga yemale mbir yi. ñii xëccoog ñun ñii xëccoog ñun bëgguma nga yemale mbir yi. waa li si diine waa ñu saa ñii xëccoog ñun. xam naa ne boo métti dinañ mujjee songoo rek ngeen summi seen grand mbubb yi. c' est que ñu xool def. problème mooy yow yaa daw làqu. yow yaa daw làqu yow yaa daw làqu waa Zahir waa <laughs> maanaam yow moom yow moom diine nga. waa baatin laa waaw <laughs> maanaam mooy mooy mooy buntu am na solo nañu dem ci li nga xam ne mooy projet yi parce que gis nañu nga indil ñu bii mooy sa clip bu hmm. euh, quatre clip wala waaw hmm. clip euh, nga indi ñu ko tey après lii lan moo ci topp album day ñëw hmm. euh, wala dañuy continuer single yi benn par benn ak bu ñu bëggee xool clip bi fan la ñu mën a dem pour seetaan ko waaw kay mi ngi insha allahu taala aba di wax rek ñun moom dañoo fas yéene liggéeyal Cheikh Seydou Aboubacar Simani waaw te liggéey googu ngërëm rek lañ ciy soxla mhm. ngërëm moom rek te suñ baabukat moom kenn du ko liggéeyal ba pare maanaam doo fayeeku waaw loolu moom mooy li am tawér bu ko defee defagul nañ quatre clip mhm. waaw euh, def benn bi ragal féete beneen bi ñu def ñu def Serigne Babacar si suñu mbégte ñaar yooyu yëpp ñëw na fii. Mhm. beneen bi ñu def. Serigne indi nga fi yëpp rek beneen bi ñu ñëw na fi waaw yow moom indi nga kër gi rek nga ñu indil. waaw kër gi rek nga fi indee <laughs> ko moom indi nga yëpp allah lépp liggéey dina ñëw <laughs> ndax fii ko defee allah bu ko defee bii ñu defoon ko ci anniversaire Serigne Babacar bi ndax man damay faral di wax ni man Serigne Babacar lépp lu ma xew rek wala lépp lu xew Tiwaawan rek maanaam nit ñi di ci yëg sëñ Babacar Sy de mm-hmm. Tiwaawan sax dara mënu faa xew duñ ci yëg sëñ Babacar waaye am na yu mel ni ziar général mm-hmm. gàmmu Tiwaawan mm-hmm. nga xamante nit ñi dañoo am cofeel sëñ Babacar dinaa génn clip insha allah jagle ko sëñ insha allah album tamit ñi ngi ci insha allahu taala clip bi ñu àndoon ci ak euh, Paaline Kassé kaas borom Kassé studio mu nekk koo xam ne cantaakul la pour wax la rek ni lépp rek maanaam dafa nekk loo xamante ni dañoo war di di def benn nekk benn comme na ko Alaaji Maalik waxoon rek ala daaru dunia daaru nawkaa wa jiifa mhm. yu jaasi ba faqzar bi tilkal kalib parce que clip bi ku ko tourné ki tourné clip bi bi ne mhm. suba ko mu ni maa ko dinaa comme fu ma bi mhm. dem jënd matériel yi matériel clip bi matériel yu bees laa koy tourné ànd ak ñun biir Dakar te cantaakul la kon wane na rek maanaam murit geek tijaan geek lépp rek benn la abaa mm-hmm. bu ko defee rek ñuy rafetal bu baax baax a baax a baax a baax mm-hmm. man ni may jàngee xasida mm-hmm. ma alaaj Maalik gi la réew mi toll foofu la la ah sëñ Ahmadou maa ngi lay woo ci suba ak tey xaaral maa ngi ñëw ci yow léegi léegi donc dem ba nga wax sa mot de fin et wax ñu clip bi suñ ko bëggee seetaan euh, fan la ñuy dem pour fekk ko. ok clip bi ku ko bëgg a seetaan rek mën nga dem euh, sama page YouTube. Mhm. dem ba da baax l'officiel. incha allah taala boo fa demee ni nga ko fekk incha allah. ñu ngi lay kontaane et puis sax bi ngay ñëw yow euh, da ngaa indaale ab ñaw. waaw kay waaw ñoo bàyyi ab téyër boo xam ni. Euh, daf ma yàgg bëgg a habillé nee na. waaw kay mi ngi li Aba. mu habillé ma daaw bi ma fi ñëwee. Mhm. maa ngi sol benn yére. waaw ma naan la lii dafa waaw nga ne ma lii dafa rafet. yaa am kàddu yow ay waxi daaw nga topp ba yow de ute nga ak man man de waxuma la ay waxi daaw démb man lu ma la wax démb ci guddi. maanaam di am ti incha allahu taala. laay laay maanaam di ñaw bi programme ko parce que man émission bi démb laa ko yëg. dëgg la waay démb. démb laa yëg émission bi. Mhm. mu ne ma ci guddi dina la ñëwal parce que lu ma ko tamit am nga kàddu de. sa waxi daaw yi moom nga indi ren Babacar Seck. yow nekk moom.

Mm-hmm. dama ko fàtte sànq may wax si programme bi muy le 30 kër Demba Ngoy moo war ko taxawee muy nuy di prophète kër Demba mm-hmm. suñu dëkk maa ko nuyu bu baax bu ko defee rek incha allah na ko ñëpp waajal incha allah ay nañu dem ci yaamu prima ak ki nga xam ne moom mooy sëñ Ahmadou Silla te ñëwaat euh, léegi ci plateau bi eggali programme bi ak yeneen invité yi nga xam ni amu nañ ko invité yi ñëw nag bu leen def comme Demba ñu mos rek euh, bàyyi ñeneen ñi ñëw mos Demba temps bi yëpp jël na ko barki Ahmadou Mbacké Demba jël nga temps bi yëpp nañ dem xooli yaamu prima te ñëwaat léegi-léegi ci plateau bi ay Rasulullah salut radiyallahu an cheikhina wa xudwatina ila rabbina mawlana cheikhina alxaddim wa nafaana allah bi barakaati amin ñu ngi nuyu mbokk jullit yi teew yëpp euh, di leen ziar rawatina ak mbokki taalibe yi di ñaanal cheikhul xadim cheikh mouhamadul muntaqa suñu borom gën ko fee yàggal te wéral ko ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di dundal diina ak di ko suuxat di leen ñaanal ñu yàgg fi loolu te di nuyu sama bunt ci kër Serigne Touba muy Serigne Chérif Fantama di moom cheikh mouhamadul fadilu di ko ñaanal loolu mu yàgg fi loolu te abaa di la nuyu di nuyu waa TFM yëpp ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ñu ngi lay fay ci dalal bi ngeen ñu dalal mhm. euh, di am mbégte it ci cër bi ngeen ñu jox nga xam ni bu weer wi teroo da ngeen di jël lépp jox ko diine di leen ci ñaanal suñu borom gën leen ci yàggal te wéral leen saxal leen mhm. yow moom sama soppi nga jaajëf loolu yàlla dogal jaajëf sëriñ Ahmadou waaw euh, yaa baax rek mhm. waaye tey nga indil ñu ci yaa mukrima euh, foog naa ni euh, du benn xasaay rek boo mës taalif indi ko. déedéet. xeetum jàng bi ngay jàng am na koo ci roy. bay xaalis yi bay xaalis mhm. yi. bay moo doon jàngkatu Serigne Modou Moustapha. Mhm. bi fi sëñ Modou Moustapha jógee muy jàngal Cheikh Modou Fadilou jàngal lu sëñ Abdou Lahad Mbacké bay xaalis boo ko daan gis euh, ci li man nettali. uppukaay rek la daan yor muy sedd muy tàngoor waaye fu ñu ko joxe micro moom mu mu toj bas ba noonu la mel. Mm-hmm. Euh, te itam mu doon jànkatu mag ñi nag sa sa sa wasiila Seydina Ousmane Mbacke Nooré ni jànkkatam la woon bàyyi xaalis yi. bàyyi maam Thierno borom daaru waaw bàyyi maam Thierno borom daaru jànkkatam la woon. tey euh, tey ñu gis ñu baari ay mag ñoo xam ne nekkoon nañu fi daan def ay taalif ko ci nekk lu tax nga choisir bàyyi xaalis waaw parce que njàng mi léegi dañ ko war a delloo si waat mhm. maanaam léegi boo seetee li may ëpp li may jàng sax euh, bokk na ci daaj wi bokk na ci daaj wi bokk na ci li may ëpp li may jàng barki dem rek leen tut xaddar am na ko ma koy wax ni ma si la del inspiré wu ci lu baax ci njàng mi ma ne ko njàng mi dama ko bëgg ndax bay xaal gisuma ko àdduna mais dama dégg kaset bi rek bëggal ko sama bopp te boo seetee bay xaal yi Moustapha Seck moom la roy ci njàng moom moo tax ñu indiwaat bay xaal yi ko euh, indiwaat ko ngir nit ñi mën a déglu njàng xasida gi nag muy yaamu karimat day fi sëñ Tuubaa daf ko bind ngir weeru koor mhm. muy xasida gu guy teerul weeru koor di teeru weeru koor nga ci biir xasida gi mun la na alal muna ma asafa ma baax doo këdërum min mustari min ko indal bahari jinnaara man sëñ Tuubaa ku ma bañ bañ nga weeru koor waaye boo ma bañee safara mooy sa kër ndax weer bi may teeru yàllaa ko ngëneelal wàcce ko ci ñun mu doon weeru koor kon xasida gi xasida gu bari nga nit la xasida gu bari nga nit la. am na solo donc da nga ñëw euh, rek xool ki nga xam ni moom mooy euh, Baye Xaali euh, wala dafa am ñeneen ñoo doon bàyyi xel moom rek ngay topp moom ngay déglu wala am na ñeneen ñooy ba lan moo waral choix bi ci moom. man Aba man nee naa la polyvalent la. Mhm. man yàlla moom ma may mag ñi la ëpp li may déglu. nga mhm. xale mhm. ndax Baye Ablaye Niang yan na ko suñu borom dolli leer daf ma mës a toog ci néegam mu ni ma. si la booy jàng xoolal bët bu sori bul xool bët bu suuf. Mhm. Baye Ablaye Niang moom waxoon loolu. Baye Ablaye Niang waaw. man ndar laa dëkk te ñun ndar ku nu xam-xam ne ci mu yàgg. balaa ngay romb may ñu benn air ci Baye Ablaye Niang. Baye Ablaye mhm. yaa raxmaanu yaa raxiimoo yaa baru yaa kariimu yaa aziz رحيما يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم jaajëf si la oh. jaajëf si la xam naa ni ku leen di wax ngeen may ñu ay air wala ngeen ñu leen di wax ngeen di jàng dañ leen a bëgg a ndax xam nañ ni yi yëpp ci ay tànt ki baas rek ngeen di fanaan mais lu waral nga choisir. air yi nga xam ni xam nga ni air yi euh, du air yu yomb lu tax euh, ñu bàyyi fi air yu yomb yi si la ak réew mi fi mu toll nii euh, xale yi ñu ci ëpp dañu leen dégg ñuy way duñ sax jàng dañuy way lu waral nga choisir yu metti yi abaa dama mës a dégg benn mag bu ma wax ni ma mhm. nit bu tolloo ci lii lii wër yàlla ba am yàlla téeku da koy jaral lu ne mhm. Sëriñ Tubaa xasidaam yii bi ma koy bind da ci sonn lool lool lool lool yenn saa yi ñu ambiance daan nga jàngal boppam yaram sax day daw jàngal boppam mm-hmm. laa lay wax abaa moo daan jàngal boppam xasida bi mujj gi mu am yàlla wombatal ko ay nit ñu di ko ko jàngal daayira bu mu njëkk am fukki nit ak ñaar lañu mm-hmm. bàyyi Ibrahima Fall buuba ku ne xam na ko moo daan jiite njàng mi am na bis sëñ Massamba ak maam Thierno toog di déglu xasida yi sëñ Tuubaa mi ngi si biir ñuy jàng mu sedd lool lool jàngkat yi noppi sëñ Tuubaa woolu sëñ Massamba mu ñëw mu nikk sama jàngkat yi de dama leen di déglu ba tuma leen dégg lu xew suñu Masamba di ko mën na dem Mbàkke xanaa sedd bi moo leen jàpp sëñ Tuubaa làggu ci jabaam ni ko Masamba mu ne am ko demal marché Ndinda Diop. mooy poos poos. waaw ah. marché Ndinda Diop sëñ Tuubaa amul poos. Mhm. sëñ Tuubaa mësta sol lu am poos am. lan mooy loolu lan mooy. jabaam mooy pour ñi nga xam ne dégguñu wolof. dégg dégguñu wolof mooy fa muy. fa muy dencukaay nekk mhm, mhm, waaw. mu yëkkati xaalis bu bari jox ko sëñ Masamba ni ko dama ca marché ba nga jënd yu diis gan yi mu mën a teel sama jàngkatu xasida yi ba sedd bi du leen laal léegi ñun bu nu koy jàng war a mën toog ci sedd wala muy taw wala muy naaj abaa man li ma yàlla inspiré wu mooy. jàngkat buy toog ci sedd. waaw man de am. fi réew mi to ndar dafa sedd. ak kuy toog koo xam day xiin di waaj a taw ñu toog. yow xam nga ni ndar dafa sedd. sedd na guy moom ndar. mais ma ne fii laa ñun fi ñu nekk nii. Ah. jàngkat buy xiin di waaj a taw nga nga nga toog di xaar mu taw fii. maam Thierno sa wasila dafa waxoon ni Serigne Touba dafa sol dàllu weñ ba indil lum ni indil nanu jaral ñun ñu sol ay dàllu param. si la sëñ si la yaa ngi ci mag ña man dama lay indi ci xale yi jàng fi ñu toll. nag mag ci lay wax. waaw xam nga xale bii nga xam ne moo jënd 5 metam yëpp di ay euh, ay tissus yu seer. waaw xeeñ parfum bu neex. mu xiim hmm. mu war a jàng jàng te xam nga jàngkat yi bu ñu ñëwee ci baas bi ñooy stade bi. mu ta nga mu taw nga xaar yow sëñ si la nga xalaat ni jàngkat bi jàngkat yi ne fii. yi may gis man ci seen i jàng. nga xalaat di dañ toog xaar taw bi soob seen kaw. abaa ah man toog naa di jàng muy taw. si si la loolu yow la de. yow kay moom macha allah moom yow moom waaw. yow xam nga yii nii sol nii yii nii Serigne Touba moo la ko jox. damay bañ a wax rek ay tur waaye bëri na jàngkat yoo ah xam ne ah bu xiinoon nii. abaa dama ni yii nii sol lii Serigne Touba moo ko xeer ñu toog jàng xasidaam yi. ah mooy dëgg de. sa aussi la bu ma lay wax dama lay wax li nga xam te ni. Mhm. maam Thior ak Serigne Touba dund na ko. Eh. sëñ Tuubaa magee nag juróom-ñetti at ak lu teg bi mu amee fukki at ak ñaar la ko tarbiyu hmm. bi mu amee ñeenti at la mokkal alxuraan maam ca ñooñu yàlla lañ daan jaamu li li ko sëriñ bi jaraloon kenn xamul lu mu doon abaa yow dégg nga mbay ku la neex dëgg la de dénkaane ko wóolu. dëgg la waaye jaay ci ko am moo tax sëñ si la man lu ma fekkee daa wax de. man nag li ma fekkee naa ne am na jànkat yoo xam ne bu xiinee ñu ne sadaqallaahu al-aziim. abaa <laughs> ñaan kay ñaan. abaa nañ ñaan. abaa fii réew mi toll. Hmm. danoo war a wane mag yi. ayca xam naa ni xam naa ni ah, fi ñu toll ni ah, fi ñu nekk am na solo lool ci waxtaan wi waaye faaw nga wax ñu programme yi nga xam ni ci nga nekk bi weeru koor gi commencé ba tey buñ ci noppee ñu dem ci projet yi nga xam ni sañ si la euh, moom nga am bu ko defee nga wax ñu album day ñëw wala dañuy continuer clip yi wala après boo jugee ci yaamu climat gi fan la ñuy demaat ci yow. waaw Abba man euh, yaamu climat bi mooy sama deuxième clip màggal gii laa ko màggal mhm. laa ko clip. Mhm. Euh, bi ci njëkk mooy ñun man bokk mel ni man. Mhm. ma weeru weeru koor gi sax laay gën noppalu. ah da ngay yëngu ci leneen lu dul weeru koor gi sax laay gën noppalu ci njàng mi. macha allah mais dama yor sama liggéey. Mhm. maanaam nekkul njàng mi rek mooy sama métier. Mhm. Euh, damay liggéey damay bañ def publicité mais damay liggéey. waxal defal boulanger la ok boulanger la ndar laa mhm. dëkk. ndar laay liggéey. macha allah fi mu toll nii ña may liggéey ndool ñoo ma may occasion bi ngir ma ñëw teewe. macha allah macha allah ngir yàlla mbokk. ak nit. Mm-hmm. ci nite. Mm-hmm. mais man weeru koor sax lay gën a noppalu ci njàng mi que bu dul weeru koor man sam li boo boo toogoon ak sama waa tey li dalee vendredi vendredi samedi dimanche su ma fanaan sama kër du ma fa fanaan. Saint-Louis moom day bari lu muy am ay. yëngu-yëngu même bu dul Saint-Louis man léegi-léegi damay génn dëkk bi ñëw. macha allah damay génn dëkk ba ñëw. macha allah ndax ñun yàlla moo ñu cërale. Mm-hmm. yëkkati xasida yi Sëriñ Tuubaa yi. ñun wax dëgg yàlla ci lii la ñuy dund ci lii leen di dee. am na solo waaw. am na solo ca ca la maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon ni ngor gi ci laay dee jëm ji ci laay mm-hmm, mm-hmm. rek la ñuy dund ak Sëñ Tuubaa. ñu bu baax baax a baax. ñu ngi lay ziare nag. bu mm-hmm, baax. waaye dun may ma occasion mu nuyu waa Ndar yëpp. bisimilah bisimilah. Euh, ñi ma ñi ma bàyyi xel ñëpp ci émission bi. rawatina ak sama waajur wu jigéen nga xam ne moom laa fi dese ci àdduna. maa ngi koy nuyu bu baax soxna Aïssatou Mbaye di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di ñaanal sama kilifa baay muy Mamadou Abdoulaye di sama mag moom itam yàlla na fi yàgg te wér mhm. ñaanal sama waa kër goro sama soxna gis nga bi may ñëw nelawul dara nee na naa sañse ba rafet parce que fi ma jëm dama war a sañse jàngkat moom lu mu mën a jàng mën a jàng moom day sant soxnaam moom yaa ngi dégg loolu moom bokk na ah, ah, soxna yi il faut ñu leen di sant ndax day metti loolu ñu bàyyi soxna yi moom amul saay rek baatin moom ah. nitu saay rek nitu baatin dañ leen fi bàyyi dem jàngi sant kenn du euh, ñoom de. kenn xamul la yàlla lay def. dëgg la de. waaw ñu comprendre ñu. dëgg la de. kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla di nuyu nag waa ndar yëpp. wax mhm. man ndar laa xëyee. Mhm. te itam ndar laay ndogoo jiwaat nii. macha allah di ñaanal waa ndar yëpp yal na defal jàmm waaye di nuyu ki ma ki def araf yi si sama. Mhm. mu Cheikh Abdoulaye Khadim Sarr. nekk ca ndar. ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla gis ci moom amiin yaa rabbal abaa di bég bu baax a baax di kontaan bu baax si di bég ci yéen di kontaan waaw projet dañuy toog rek lu nekk ci suñu xel rek ñu duggee studio def ko. Mhm. ndax yàlla daf nu boole ku ñuy wax Papis Jara clip bii kii ka clip mooy Makhtar Faye mhm. tey ma nga ca France di ma bàyyi xel. Mhm. moom ak ku ñuy wax Abdou ñoom ñoo ko clip yàlla xam na ni euh, li ma ci def bu ma la ko waxoon tey nga jàpp sa gémmiñ te du moyee kenn sama moyee bopp. macha allah ndax na mu bëgg di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci sama moyee bopp. waaye loolu lépp ñu am ñu ñuy dimbali ak di ñu jàppale ak di ñu xelal. am na solo ci ñuy liggéey. am na solo abaa kontaan nañu trop ñoo la gën a bëgg. di la ñaanal it suñu borom gën laa yeggale nit yoon. jërëjëf di la wax nag nga bàyyi Mamadou Mouhamed Ndiaye ndax moom damaa ko bëgg ngir sëñ Salim. may naa ko jàmm. dama ko bëgg ngir sëriñ Salim. dama ko xamal yu bari nag. waaw yow da nga ko xamal yu bari <laughs> waaye naa ko may jàmm waaw dama ko xaw a dégg yow da nga ko xamal. ajo sëñ si la dégg nañu ñu ngi lay kontaanee bu baax. ومن علي آدم لسماو لسماو لم تزل لخو جاكوي لم تزل لخو جاكوي لم تزل لخو جاكوي لم تزل لخو جاكوي لم تزل لخو جاكوي لم تزل إمام محمد سيس il faut célébrer le dit en wolof il faut célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il demande à tout le monde de se lever jóg leen màggal Yonent ana soppe Yonent ana soppe Yonent ana soppe Yonent ana soppe Yonent ma ma ma ma ma ma dat fatratul islam basharan wa biha الأصول yëkkal la micro bi wëril il vient jaar fële wàcce lui il ne chante que le prophète Mohammed am waxtaanal jël sa temps ana soppe yonent ana soppe yonent ñoo ngi nii ana soppe yonent ana وبدا للوجود منك قريب من كريم أباو غرباو نحساب تحساب نحساب تحساب نحساب تحساب نحساب تحساب نحساب تحساب نحساب تحساب نحساب تحساب ولا بلولا خلدت أدنو جوما جوزاو محمد سيس سبا ما يتنن Mouhamed Siis sabaama yi yot wax leen Mouhamed Siis sabaama yi yot wax leen sabaama yi yot nan. Moustapha. Siis. il faut qu'on leur explique du roi du roi Assane famille du prophète Mohammed sallallahu avec cette famille c'est pour cela qu'il qu'il le roi Hassan II et le roi Mohamed VI. Aboubacar Hassan II yéen ñii sama may yot nan roi Hassan II waaw waaw sama may yot nan roi Hassan II yow mii sama may yot nan roi Hassan II waaw waaw sama may yot nan suñu ay doodo ndogu mhm. ñu tamit ba pare dinañu ñëw ci biir salle bi def benn spectacle boo xam ne spectacle weeru koor la mhm. yëpp day dal ñoom soxna Serifa yi ñee fay nekk mhm. eh, parce que ñun ci wàllu ay saayir lañ nekk mais yow tamit fi ñu nekk saayir nga da ngaa génn rek daal di pëtax lu ci diine def ci sacré yàlla def ci bënn ak euh, moom euh, ba pare ba pare ay way boo nekkul ay way yaa ngi ci ay way <laughs> ay eh, jàmm yàgg eh. maa la bàyyi nga nuyoo après ñu bàyyi ko moom mu nuyoo suñu invité bi <laughs> moom dama koy dama koy nuyuwaale <laughs> moom tam dama koy nuyuwaale mm-hmm. waaw mu nekk koo xamante ni waaw miin na aar bi mm-hmm. mu def lu am solo clip bi ba ba léegi ñu ngi koy seetaan samedi passé la waroon ñëw mais xam nga weekend saar bi dafa dafa dafa dafa dafay seere dafay seere ma ne ko non yow bëgguma ngay ñëw fu seere dama bëgg nga ñëw ñu toog ci ñu xool bis bu yaatu mm-hmm. ñu am lu yaatal yu baree baree baree bare soxna Serifa la aussi maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. Euh, di rafetlu ci invitation bi. Mm-hmm. moo di nuyu téléspectateurs yëpp ñuy seetaan aussi. Mm-hmm. donc le pourquoi nga tànn son bi woy ko je pense que du sa première son mais ci lu jëm ci wàllu ay arabe ak way wayu dine c'est pour ta première fois waaye oui c'est la première fois en fait euh, du ma def carrément woyu arabe. mais vu que weer koor bi dafa ñëw. ma ne pourquoi pas ma jël ko. vu que cover bi am nañu ko def en anglais. Mhm. am na ñu ko def en wolof. Mhm. ma ne pourquoi pas man ma jël ko def ko ci sama langue. Mhm. mooy mandeng bi ma doon. ok oui damay def musique. Euh, musique mandeng laay def en fait. mais est-ce que li ñu wax ci arab moom nga traduire euh, ci mandeng wala da nga way ci mandeng lu la neex way yaasa bi nañ ci def bëgg mais lépp nga dugal ko ci <laughs> même tempo bi euh, wala. non non en fait Maxel li mu woy loolu laa reprendre. Maxel li mu woy moom nga jëlaat da nga sentir ni daal mande ngi jot jotuñu dégg li Maxel wax. ak ñi ko koo en mm-hmm. anglais dem jotuñu dégg. yow